ci weeru tet wi nga xam ne moom lañ nekk te tey di juróomeelu fan bi ñu fas yéene àndaat ak yéen rek ci béréb bu tedd bi di daarul moxti ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa i bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci biir weeru koor gi yëpp tey nag ñu dalal suñ mbokk moo xam ne mi ngi bàyyi ko dakaaru ñu koy woyee sëriñ jibi say mu ñëw ngir ànd ak ñun ci jataay yii nii lépp ngir li ko yàlla baaxe ci wàll gi nga xam ne moom la fas yéenee ànd ak ñun waxtaan ci tey mu mën koo bokk ak mbokki jullitam kon sëriñ Jibi Sey lañu dalal fi jataay bi tey mu fas yéenee ànd ak ñun ci ahamiyatu taallum bi luxatil umm muy am solo goo xam ne nit ki la muy xamlu mu jaare ko ca làkk wa mu nàmp am solo goo xamante ne loolu am na ko solo kon loolu ci la sëriñ bi fa yéenee waxtaan ak ñu tey incha allah muy nag tom am solo euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko ñi ko fi jiitu woon di ànd ak ñun rek képp koo xamante ne yaa ngi ñëw di bokk ak ñun jotaay bii nii. fa ngay jóge ñi nga xamante ne say mbokk lañu say mbokk ci wàllu diine bokk ak yow bëgg-bëgg tamit te mooy fépp foo xamante ne ñi ngi fay sàkku aw yiw nga dem fa sàkku ji ko euh, noonu tamit la ay dëkkanoom def ànd ak ñoom ànd ak moom bàyyi ko ba ndakaaru ñëw ngir bokk ak ñun jataay bii nii kon li nga xamne mom moom lañ ci séntu ci aw yiwu yalla nañ ko yalla fay fay go xamante dina kawe suñ jot ñun ñep kon sëriñ jibi sey bi mi ñew mi ngi andak ku ñu wax basiru sëriñ basiru ak sering basiru Touré ak sering jili sey ak sering basiru sering basiru ciubou kon ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom la àndal bi mu ñëw fii jataay bii nii ni ma ko waxee léegi rek euh, tomb bi nga xamante ne moom la ñë moom la fas yéenee ànd ak ñun tey muy am solo goo xam ne nit ki xam lu jaare ko ca làkk jaare ko ca jaare ko ca làkk wam nàmp am solo goo xamante ne loolu am na ko solo ci loolu lañu la fas yéenee ànd ak ñu tey incha allah xamane naa ñuko jox kaddu gi rek dañuy teunk asleuf ci ay yengutom rek mu alquranul karim ci daara ju ñuy wax maslakul huda di daara jo xamantene Dakar la nek fofé la jangé alquranul karim ci ku ñu wax Serigne souleyman sen fofu nan daara jooju tamit ci la jangé lu baree bari ci walu xam-xam xam-xamu diiné ak yeneen xam-xam yi nga xamantene julit bi dana dana ko euh mu nek tamit ab gestu kat nek tamit bind kat bind na ay téré ñu man ci lim rek ben bo xamantene euh mi ngi ko tuddé taallam dinaka bil ulufiya manam moy xamlul sa diine ci wolof ak binen bo xamantene mi ngi ko tuddé cheikh ahmed Bamba khadim rasoul jaar-jaar ak jangale kon liñu def rek mom moy dañu jox kaddu gi serigne djibi Sey ci tom bu am solo bi nga xamantene ne lañu fassiyene ñu tay inshallah ba lañu allah ko jox kaddu gi rek ñu fatali mbokk yi ne suba ci alxames ji incha allah di juroom bennelu fan ci wéru koor gi fassiyene nañu andak euh inspecteur serigne sambousso mu fassiyene andak ñun ci العلاقة بين الدين والسياسة xiraat xiraa alil waaqi ak Sénégal yi mooy relation bi nga xamante ne moo dox diggante diini ak politique mu fas yéene ci andi am njàngat nag sukkandikoo ko ci li nga xamante ne mooy xew dëgg-dëgg fii muy xewu ci Sénégal kon tom boobu incha allah ci la Serigne Sam Bousso fas yéene ànd ak ñu suba incha allah ci alxames ji lu juróom-benn fan bi kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Jibi Seye ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. mbale suñuy kàddu ci nuyu ak siyaare kenn ku nekk ci turam ak santam di leen sant bu baax wax dëgg yàlla ci dalal bi ngeen ñu dalal ci jataay bu tedd bi ñu ñaan suñu borom rek. yaakaar gi ko sabab yàlla na leen ci suñ borom bon lu kawe seen jort te mooy laabirante rek diggante jullit ak morom ma ni koy yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee ni addiinu nasiixa diine ji laabirante la di ñaan suñ borom weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ nekk mooy chehru boo mboolem luñ ci yëngu rek yàlla nañ ko yàlla nangul te niñ ko baaxoo waxee yal ñu wër wi di fekk ñu nekk ay julit haqqan bu ñëwé ñu dess di ay julit haqqan bu wéyee ñu dessat di doon ay julit haqqan ba mu fekkaat ñu ci suñu diiru dundu mel noonu yomb na suñu borom lool yal ñu ko yalla defal di sant nak jëk ñuy tabbi ci waxtaan wi sëñ Omar Diop mi nga xamné ne suñu xamé ak sëñ Ahma ci mom la jaaré ba sabab jataay bi ñu koy sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax xam gi mu xam bëggu xam-xamu ax Ahmad Mbàkke mi toog moo sabab mu boole ñu ba jataay bi am ñuy santaale sëñ ma bu baax wax dëgg yàlla ku ne xam na taxawaayam ci barab bi ku ne xam na taxawaayam ci liggéey bi ñu ko ciy sant ak booleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi di siyaare eh, suñu sëriñ suñu wëlëre sëñ abbas mbàkke sëñ sëñ khadim abbas wax deug yalla ndax amna na yu ñuy seq yu bare bare yu jëm ci mbiru sëriñ bi rek ci biir ak ci biti di siar tam ki nga xam tay moy khalifa mam maam cerno birahim mbàkke muy sëñ abbas diko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wërul ko yene bi mu am ci liggéeyu borom daaru bi yàlla na ko ci suñu borom defal lu kawee njortam ci barke Cheikhul Khadim di ñaanal suñu xalifa muy xalifatul am muy taifatul muridiyya muy Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te wéral ko mbooleem naal yi nga xam ne naalal na ko sëriñ bi yàlla na ko yàlla yeggale te yeggalee ko ci ayam su ko defee ñu ngi siyaaraat mbooloo mi yépp di wax ne seen jotaayu tey ñi ngi fas yéene waxtaanee lu ama am solo te mooy njariñal jàngee ci saw làkk maa ci yokk sax rawatina say mbiri diine nga xam ne waxtaan wi ni mu nar a tëddee mooy dinañ njëkk a leeral ni làkk yi bare ak yow làkk wi ñu ciy jëfandikoo te mooy bi nga njëkk a xam te mooy bi nga nàmp nga xam ne boo demee ci wàllu tubaab moom la ñuy wax langue maternelle mooy làng bi nga njëkk a dégg ci biir kër gi ginnaaw ga nag beneen làkk bu duggaat rek daf cee dool lépp waaye boobu daf fay des su ko defee làkku njëkk woowu dafay làkk bu am solo lool di làkk boo xam ne incha allah ci biir waxtaan wi dinañ leeral bu baax ni nga xamee ni looy sàkkoo xam rek jaaree ko ci làkk woowu dafa gën a jàppandi su ko defee du ñàkk ñu laalaale ci biir waxtaan wi tey làkk yi nekk ci biir réew yi ban gëdd ak ban taxawaay lañu war a am ak làkk yi nga xam ne dañ leen a jéggaan lu ci mel ni arab ku ne xam na ne du suñu cosaan waaye lislaam moo ko fi indi su ko defee nag mu nekk làkk bu am solo lool boo xam ne dangay faral di wax ne dafa am làkk boo xam ne yàllaa ko tànn am làkk boo xam ne yàllaa la ko tànnal bim la mooy bi ndey ak baay di làkk boobu da ngaa judd rek fekk ko fa mu neex la mu naqareel di nga ko dégg ndax ñoom ñooy ñi ngay njëkk a saafonteel ñoom ñooy ñi ngay njëkk a kon kàddu yañ lay wax ci làkk wañ la koy waxee mënoo ko ñàkk xam bobu yalla la ko tànn waaye ku ne arab lak la wo xamne suñ borom moko tanal bopam yent yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dan na wax ne beug len arab ngir ñet arab la alquran arab la te aljana arab lañuy lak làkk yeb di wane ne làkk la wo xamne wu suñ borom tanal bopam la ba yonenti bi nga xamne mom la yalla làkk woowu la waxee ña nga xam ne ñooñ la yàlla yabal ci moom moo tax boo demee ci alxuraan di nga dégg suñu borom di wax ne wa ma arsalna min rasulin ila bi lisaani xawmihi muy aaya bu ama am solo boo xam ne bokk na ci li muy leeral mooy amuk solo aw làkk bañ na ko ba moom suñ borom nee na yónent bu muy yebal rek xeet wa nga xam ne ca la koy yebal làkk wi ñuy jëfandikoo ca lay wax ak ñoom moo tax mu teg ci ne li yubayyina lahum ngir mu biralal leen ngir mu leeral leen waaye ci war làkk la koy jaare mooy làkk wi nga xam ne ca ñam ko yebal moom lañ dégg su ko defee nag yónnent bi alayhi salaatu wasalaam nekk koo xam ne yàlla daf koy yónni ci mbooleem doomu aadama yi ilaa kaafatan di naas te mbooleem doomu aadama yi du ñëpp a dégg arab waaw du ñëpp a dégg arab moo tax ba ci alxuraan di nga gis ñu koy tekk ci yeneen làkk di gis ñu koy tekk ci yeneen làkk ngir maanaam mi nga xam ne moom la ëmb ci biiram nga mën cee jote ba bu topp ko jotee mu mën a jàppandi ci yow lu mel ni axadis yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax te lépp nekk luy leeral diggante nit ki ak boromam nekk luy leeral tam diggante nit ki ak ni mu war a jaamoo boromam loolee yëpp di nga gis ci ay réew yu bari ñu koy tekki ci làkk yi nga xam ne moo gën a jàppandi ci ñoom donte am na ay daaj yoo xam ne ci arab kooku loo dégg-dégg saw làkk loo bëgg-bëgg saw làkk bu mu mën a doon rek moom du tax nga tuxal ko boo seetloo réew mi li ñuy bëgg wolof yëpp li ñuy dégg wolof yëpp sañu ñoo xutba ci weneen làkk wu woow woowa ndax gannaaw yéen Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul daf ñu dénkoon ne imam malik na sen roy kay ci walu mësa te gis nga khutba ci arab lañ koy lañ koy def motax tax léeg faral di jital bayan bayan bi nek ci wolof ngir ëpp ci mbolo mi gëna mom lañ dégg su ko defee ñu mën leena lak lak wo dinañ ci mëna lu bare bare bari dinañ ci mëna xamé lu bare bari seen diggante ak seen borom waye du té khutba bi mom ci arab lay dess julli itam lo farlu farlu lo bëgg bëgg saw lak sañoko tekki wax ay baati wolof waye baati arab yang nga xamne ci lañ nekkon te lolu li koy dëgëral yonent bi wax gi mu wax ne sallu kama raaytumuni usalli da ngeen julli comme ni ngeen ma gisee moy julli arab la ci daan lak kon arab nga ci lak motax julit bi warna gor gur lu farlu ba nga xamne ne xam-xam yi nga xamne arab mo leen eum ci biram warna fexé ba xam lu arab ba meuna yeur téré ya nga xamne ci arab la ñew mën ci xamé dara waaye boo seetloo réew mi loolu moo ci jàppandiwul daanaka jullit yi nga xam ne boo leen joxoon alxuraan ñu mën a xam lu bare bari ci biir bariwul koo xam ne boo ko joxoon saxiix Buxaari wala muslim mu mën a jàng ab axadis bu mu mën a doon mën cee xam lan la ci yonti bi wax ci arab bariwul wara gis nga tekki gi du mën a ñàkk faaw ñu leen di laabire ci ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañ. yàlla defal leen dégg ci diine ñuy wax ak ñoom ci làkk bi nga xam ne moom lañ xam su ko defee maanaam bi day tuxal rek moo tax damay faral di misaal aw làkk ni ndab su ko defee nag xam-xam bi ci biir wala njàngale bi ci biir mooy ñam wi nga xam ne moo nekk ci biir ndab bi boo jëlee misaal làkku arab dafa mel ni làkk bi ndab la waaye tey su ma la waxoon ay baati arab am na jàngale boo xam ne moo nekk ci biir wala kàddu goo xam ne moo nekk ci biir waaye bu fekkee déggoo arab ndax di ko mën a topp misaal yi mooy boo jëlee tasori sixaar tey boo demee ci tarjumaan ji jël benn bayit yi di nga dégg sëriñ bi ne la yaa ayyuha sibiyaanu la tastaxiloo anil huda wa bil ulumi staxiloo fastaxiloo bil xibsi wa tilaawa wajtaniboo majalisa shaqa xoola kàddu gi ki dégg arab soo ko waxee moom dégg na ko waaye am na lu des moy top ji serigne bi ñan la ci waxal ndaw ñi waye bu fekkee deggo arab dafa melni talal na la ndab bo xamne yow ñam wi ci biir moom mëna ko jëfëndiko li nga mën moy xol ndab bi rek naan melni ni wala melna na waye ndab bi li tax ma jox lako moy ñam bi mu ëmb ci biiram la bëggoon nga jëfëndiko ko lan la ci serigne bi wax ya ay wasibyanu e ya ndaw la laa bu leen soxlawoo anil hudda lu dul njub wa bil ulum ashtakhilu te itam ay xam xam na ngeen koy fa fastakhilu bil khibz wa tilawa na ngeen soxlo wo di wattu tey jang wattani bo majalisa shaqawa te itam na ngeen teet jotaay way taxati gis nga bi ko ci arab ki deug arab rek mom da koy daal di jëfandikoo ci saasa ndax gis na ndab bi xam na li ci bir ndab bi mën nako koo waye bu fekke nak yow ndab bi rek nga xam ñam bi ci bir mom xamoo ca dara su boba nak reg ak mandi doko gawa gaaw ci njang mi ngay jang motax mën nga ko tari mu neex lool mën nga ko wax mu neex lool waye nak bu fekkon xam nga bu wër li la ci serigne bi wax amna geneen tari goo wara tari wa moy tari ko ci jëfé ko tari ko ci jëfé ko ndax ndigal la ci joxe yeen ndaw ñi bu len soxlu wo luddul ñu te li lay won ne dégg njàngaleem serigne bi amna solo da mos di waxtaan ak benn mak mu ma jamono biñ tollu serigne bi mo gën bëgg sëriñ bi waaw wax wax bu naqaree dégg ndax bu fekkee ci bëgg rek nga yem su boobaa mën ngaa toppee sëriñ bi noo xam ne du nim taamu te su boobaa jariñu du la yomb ndax bëgg rek ci nga waaye bëgg dañ koy wommat lan moo koy wommat xam-xam xam-xam bi lay dimbali sa bëgg sëriñ bi jariñ la kooku faw mu ànd ak nga dégg sëriñ bi boo déggee sëriñ bi ca saasa mënoo ko ñàkk bëgg sëriñ Tuubaa dafa bëgglu dafa sopplu su ko defee nag dégg bi nga koy dégg mooy tax téere mi loo ci yër donte ci arab la ko wax xam bi ngay xam li sëriñ bi wax mooy tax boo fa bàyyi ko topp ko te loolu ñun ñi nga xam ndakaaru lañu féete rawatina di ay ndaw boo seetloo jamono fi mu toll ñi bëgg sëriñ bi bari na lool waaye ni ñuy toppee sëriñ bi ndax noonu la te loolu bokk na ci li ciy gàllankoore mooy ñàkk koo dégg mooy boo seetloo sëriñ bi njàngaleem li ci ëpp ci arab la ñëw donte bàyyi woon na xel jamono bàyyi xel gopp daana tombal mag ñi nga xam ne am njàng wéy na ci ñoom ku jàng na ju xalaat xaaj di nga dégg mu ne ndaw luy jàng dafa mel ni ngay rëdd ci aw doj rëdd ci aw doj loo ci rëdd ca lay des waaye mag nag moom jàngal ko dafa mel ni ngay rëdd ci aw ndox boo teggee sa loxo rek mu daal di faru loolu li muy li muy li muy li muy tegtale mooy bu fekkee ay ndaw lañ bëgg sëriñ bi lool te niñ koy toppee desee mel na mu war a mel mooy njàngaleem sëriñ bi moo desee yegg si ci ñun te gàllankoor bu sew bi ci nekk nag mooy làkk wi masaalikul jinaan tey joxe ci xeeti ndigal cay xeeti tere waaye arab gi mu doon su fekkee yow kenn tekki lu ko ci ci wolof wala yow amoo pas-pas bu bu la dimbali ba nga jàng arab ba boo tiimee masaali xam li ci sëriñ bi wax lépp boo fa bàyyi ko mën koo tari ji ci sa làmmiñ mën koo tari ji ci say cër su boobaa nag toppee sëriñ bi toppin am am solo mën naa mën naa diis kessa motax tekki gi mënta ñak te bo setlo magu muriti ni len suñ borom defare tawfiq ca lola moy demal ca daara ja nga xol ni jangé téré dafa melni misal bima ci joxe sank rek ndab li lañ lay lañ yekkon ci ci ndab bo xamne arab la waye ñam yu ben rek ñam yu du soppeku ndab yi nak mën na soppeku ndab bi moy arab ndab bi moy wolof ndab bi moy français ndab bi moy anglais waye li ci bir nak ben rek la serigne sambay yalla nañ ko yalla fayal mu liggey ci liggey bu reuy moy jele na masalik ci arab indi ko ci français su ko defé français bi mom mën na baña soxla wo sax ciosan ba nga xamne mo nekkon arab ba waye bu liré liñ bind ci français rek dina xamne serigne bi li la doon jangale moy dana xewlu kassa dina xewlu wolof bi bu fekkon dimbalé nañ ko lola nga xamne dañ koy jëlé ci arab tekkil ko ko ci wolof ba mu dégg ko ndax mooy làkk wi nga xam ne moom la nàmp te lépp lu ñu lay jàngal ci weneen làkk wu mu jaar wi nga nàmp ci lay gën a gaaw moo tax sëriñ bi ci ak xarañam mbooleem jàngale yu baree bari yi nga xam ne def na ko ci téere yi daan na ko tënk ci ay tomb yoo xam ne daka daan tombal mag yu baree bari nga xam ne lu gàtt lay doon mën naa cee indi benn rek bi muy wax ne mbooleem li ñuy jàng ci téere yi daje na ci wor ma waaw nee na mbooleem li ñuy jàng ci téere yi daje na ci wor ma sëñ bi teg ci ne wor ma nag ñett la wor ma sa digg sa borom wor ma sa digg sa morom wor ma sa digg sa bopp sëñ bi teg ci ma sa digg sa borom mooy lum la digal nga def lum la tere nga bàyyi lum dogal mu neex la la digal nga def lum la tere nga bàyyi lum dogal mu neex la wor ma sa digg say morom mooy lépp loo xam ne bañ nga ku la ko def bul ko def kenn te itam ku la ko def nga jéggal ko xoola jàngale gi te ci wolof la ko wax lépp looy bañ ku la ko def yow bul ko def kenn wa kun ma annaasi jami'an dëhraka kama tuhibbu an yakunu maaka loolu moom la wax ci nañu xalaat xaaj loolu arab la waaye gis nga la mu wax foofu duggaat na ci tënk bu gàtt bi mu wax lépp looy bañ ko la ko def bu ko def kenn te itam ku juumoon wala mu sàgganoon ba def la ko nga jégal ko te yàlla rek tax te moom sëriñ bi wax na ko ci kàddu naam waaye da koo jëfe lim daj diggam ak tubaab bi ci ay coono ci ay fitna mënee su koo takk waaye dégg nga la mu wax afawtu anil aada i turam jéggal naa mbooleem samay kon bu nee la war ma sa digg ak say morom mooy looy bañ bu ko def kenn ku la ko defoon it jéggal ko moom jàngale na ko waaye gis na da koo jëfee ba noppi su ko defee lam ca tagaat mooy war ma gi nga xam ne moo war sa diggante ak sa bopp mooy lépp loo xam ne bañ nga ku la ko nettali boo wéetee bu ko def boo wéeteelu ko bu ko def te boo seetloo xeetu tomb yi ak xeetu jàngale yi li ci sëriñ bi def bari na lool lool lool te loolu dara waral waralu ko lu Janggale bi geuna jot nga xamne dafa bok ci kéemaani lak moy dafa am lak bo xamne menes nañ ko wax menes nañ ko bind waaw nañ ko wax man nañ ko bind am lak bo xamne danaka wax ko rek lañ man bo setlo suñu lak wi di wolof ñeuk l'islam di dugg ci réew mi dañ ko daan waxe rek waye ay loy loy moy ay lettre wala nga ne alphabet bo xamne meun nañ ko bindé lak wi danaka amul dañ ko daan wax rek moo tax boo jàngee histoire dañ naan la tradition orale lañ am dafa am tradition orale am tradition écrite tradition orale mooy loo xam ne da ngeen koy donnuwante wala ngeen koy joxante wala ngeen koy weccoo xeet wu dem weneen xeet jël ko mbooloo mu jàll beneen mbooloo ñëw fekk ko fi waaye liñ koy jàllalantee suñu biir ci wax képp lay am te xam nga wax moom dénk ko waaye dénk ko ab lettre moo gën a wóor bu ma jëlee samay wax bind ko ci këyit jox la ko lu àdduna yàgg-yàgg du soppeeku waaw mbind mi moom lu àdduna yàgg-yàgg du soppeeku waaye bu dee ay wax nag laa la dénk boo xefee sa pas-pas mën na cee dugg gis nga suñ jotaayu tey bii buñ fi bàyyee ko woon ku ne di ko nettali boo xefee di nga dégg nettali yu baree bari yu bokk la koy def mooy ay wax la ñuy jottalee te ay wax mën naa bañ a jot ngir ñu denc ko mu yàgg mbind daa gën a wóor gannaaw nak lak woo xamne ne mënul ko jëfëndiko ci bind newu fi motax tax daanaka dañ ko daan jokkalante ci wax rek da ngay wax sa morom mu denc bu xalé yu juddoo mu netali len ko xalé yu ñoy dem ba nekk mak téye ko ba xale yi mu netali nako motax li lek soppeku mëna am ci digënté bi motax sëriñ bi ko xarañ ba daf ne wax na ngeen dégg jëf na ngeen gis bind na bayyi fi lum ci tek sama ginnaaw bu dara fi seen xol xeetu nettali yi bi diñ ci gis ak wuté ndax ay wax la yu ñuy nettali rek ki dégg ko ni ki dégg ko nii ki waxe ko ni waaye mbind mi moom dara mënu koo tuxal dara mënu koo soppi waaye ci lan la ko indi ci làkku arab ndax mooy làkk wi nga xam ne moo gën a jot te ñi ko dégg ci àdduna bi ñoo ëpp fuuf te ku gëstu taarix wax nañ ne sëñ Moussa Ka woy yi nga xam ne moom la njëkk a woy sëriñ bi ci arab la ko defoon ci jolof bi ko sëriñ bi déggee danako ko am na def de mu ne ko waaw waaw daal di koy génnal yi bi ko sëriñ bi la ne de waye bu benen yone de may woy ci wolof bo gisee may woy sama sang ba seydina alayhi salatu wasalaam ci arab dama bëgg bu ko ay mbokam déggee xam bo ma deetee way la nga ma way ci wolof bi nga xam mom la doon sama mbokk doon ko ma Ka bu ti khalima di woy ci wolof ku melni serigne bay jaxata li woy ci wolof Cheikh Samba Diarra Mbaye li woy ci wolof sëñ Mor Kayre li indi ci wolof sëriñ baa ngi bind ci arab di def ay tomb ci wolof waaye defar na ay mag yoo xam ne daanaka lu baree bari lu sëriñ bi woy ci arab bu fekkee yow sa xam-xam wala sa gëstu ci diine dimbaliwu la ba nga mën a jekku làngu arab baaxee na la fi ay mag yu baax yoo xam ne defar na leen bañ mel lañ war a mel su ko defee loolu sëriñ bi làkk fële ci arab donte jote woo ca boo gëstoo ñii mën caa nàmp lu baree bare bare bare sa diggante ak sa borom ku mel ni sëñ Moussa dinaa ci indi yenn waxam yu ama am solo bi mu naan sëriñ bi nee na ne ci sa bopp ak ne ci man ak ne man bokkuñu ay pay yéen murit yi fi sama wax bu am solo ne ci sa bopp ak ne ne ne ci ne fi man ak ne ci man bokkuñu ay pay yéen murit yi yi fi sama mu teg ci ne ku ne ci sa bopp ñu balaak sa bopp duniyaa wa nga farek sa lépp benn nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem niiraani ku ne ci man mën na ci moom te yor ko àdduna ak àllaaxira far defar ko ramm ko sàmm ko ba xëy jofal ko jébbal ko njool màkka mu far dëkku xam nga bi gën mu teg ci ne ku ne fi man ngir koom yi ak saayir si ma jox la yooyu sama baat yi dellu si su ko defee wax la boo xam ne sëñ Moussa ko moo ko wax waaye réerewu ci ak sëriñ bi ndax pas-pas bi mu ko waxee sëriñ bee ko def ci moom donte ci wolof la ko wax te itam wolof yi moom la ñuy gën mën a dégg bokk na ci it lenn lu ñu leen di nettali loo xam ne diggante sëriñ bi la woon ci jamono bi muy nekk ci géej gi tumuranke fa lool nga xam ne moom képp a demoon donte am na ay mag yu murit yu def yitte ba fekk ko fa waaye ci biir tumuranke googu sëñ Mouhamadou Ami Diop Dagana mu ngi nettali ci Irwa Nadim ngir won sëriñ bi ni mu nekk woon am boo jëmm joo xam ne foo ko natt ci bëgg réewam foo ko natt ci bëgg làkkam wii gis nga ni mu waxee sëñ Moussa Ka ba wëlbatiloo ko xalimaam ngir muy wëy ci wolof kon mi ngi doon bàyyi xel xeet wi nga xam ne fa la ko suñu borom wàcce mi ruju'i ila xawmi sa'adatana wa takfina yawma jamil xarxi niiraana kon sax su nekk mu ngi bàyyi xel aw xeetam ndax wax dëgg yàlla ñun la ko yàlla baaxee mu wàcc suñu biir nekk ku sagal dër bu ñuul waaye mbooleem li nga xam ne dafa ànd ak dër bu ñuul sëriñ bi da koo fokk rawatina làkk wi moo tax sëñ Mouhamed Amady di nettali ci Irwaaw Nadim ne jamono yi nga xam ne sëriñ bi eh, dafa nekk ci tukki bi dafa am ku ko mos a dig butéelu misk fekk sëriñ bi sàkkuwu ko ci moom ndax du sàkku lenn ci kenn ku dul borom du moo ko sàkku ci moom waaye waajee gi sëriñ bi rek xëy sëriñ bi dig ko ko waaye nee na ni mu ko diggee sëriñ bi noonu la ko diggee woon keneen. waaye far yàlla dogal digg ga sottiwul bi mu demee ba digg bi sottiwul nag ñuy nettali ne ñoom ñaar ki nga xam ne diggoon na ko buté bi te joxu ko ko ak moom mi ko digge woon nee na ñuy xuloo xuloo boo xam ne ci wetu sëriñ bi la moo tax sëñ sëñ sëñ Mor Ami Diop ñu koy nettali dane wa zalika bi xurbin min nii mooy xuloo la boo xam ne mi ngi doon am ci sëriñ bi yaa ma ko diggoon joxoon ma ko nangam sangam te wal kàllaamu bi lugatinaal wolofiyati nee na kàllaam gi ñu doon waxantee ñoom ñaar seen baat yooyu leen mu ne bi naa ci suñu luga suñu waxin al wolofiyatu ci wolof lañ doon waqantee loola te booba ca gabon nee na walay saa fas yi xëy nii te nekkul sax wolof boo xam ne wolof bu leer la waaw nekkul wolof bu leer waaye ay wolof la rek waaye sëriñ bi ci baati wolof yooyu nga xam ne doon na ko dégg ci tumuranke goo xam ne tumuranke woon na ko sori gum sori aw dëkkam nee na dafa mujj zakarat ni bil jinsi daf ko mujj fàttali réew mi fàttali ko fi mu bàyyeekoo ba nga xam ne xolam sedd ca lool ci baatu wolof yooyu mu dégg mu teg ci ne xattaa ka an nii fi baladi waaw xattaa ba nga xam ne ka an nii dafa mel ni ki man fi baladi maa ngi ci sama réew te lan ma ko yóbbu foofa mooy baatu wolof yi nga xam ne dégg na ko ci barab bu sore sore sore sore loolu yëpp day sëkk tegtal ci làkk wi nga xam ne moom ngay làkk moom nga yàgg jëfandikoo fi mu la mën a yegg te loolu sëriñ bi da cee doy tegtal bu baax a baax a baax ba ci mag ñim defar daanaka wolof moo nekkoon seen làkk wu ñuy gën a gën a jëfandikoo mbooleem ñeñ tarbiya mbooleem ñeñ defar biir ak biti ku mel ni akasa ki nga xam ne moo sanc dëkk bi di daaroon moxti yi boo déggee sëñ Fallou ne suñu bàyyi cerno daf ñoo jàngal bañ ni ar mu yar ñu ban ñu nër mu yee ñu jar loolu mën ngaa xalaat yan làkk la jëfandikoo moo tax ñaari làkk yi ma wax sànq day dellu siwaat mooy làkk nga xam ne yàllaa ko tànn ak làkk wi nga xam ne suñu borom moo la ko tànnal te doy na ci sëkk tegtal mooy ki lay jàngal arab ak tey foo ci mën a toll ci déggin foo ci mën a tollu ci kawe am na làkk wu njëkk jëfandikoo mooy làkk wi nga indaale rek bu dee wolof nga jëkkoon a dégg buñ lay jàngal arab daanaka arab lañ lay yekkal ci làkk wi nga dégg rek ba nga dem ba suñu borom ubbi la ci ba nga mën ngaa doon sax interprète moo tax boo demee ci yenn borom xam-xam yi dañ lay xamal ne la amul benn réew ci jamono bu suqaliku te duwut wut ne aw askanam seen làkk lañuy ñuy jànge du tee nag ubbeeku jamono ak tey ni ñu demee bay wax wàllu village planétaire nga xam ne dañuy wane ne àdduna lépp ràbbantikoo lépp lëkkaloo ba yem ci aw làkk képp képp du doy waaye saw làkk moom na nga ko xam na nga fexe ba mbooleem luy xam-xam it na nga ko ci yekk waaw maanaam mooy tradiction tey buñ jëloon xam-xamu mbay tey am na ay téere yu bare bari bari yu ci wax ci wàllu wolof ñu yekk ko ci làkku euh, yu ci wax ci wàllu anglais wala wax ci ci wàllu français mais bu ñu ko yekkee ci làkk wolof jàngal nit ñi nan la ñuy jàngee ci wolof su boobaa dinañ mën a am xam-xam bu baree bari ci mbay te ci lan lañ koy jaarale ci làkk bi nga xam ne moom lañ xam ci wàllu commerce noonu ci wàllu industrie noonu ci wàllu communication noonu ci bépp xeetu xam-xam boo xam nit ki da koy jëfandikoo rek mu koy jëriñ ci àddina am na ci làkk woo xam ya koy jàngale ci làkk wooyu la nekk su ko defee nag gannaaw réew mi li ëpp ci ñoom ci làkk wi lañ dégg làkk wi lañ xam boo leen ko tekkilee rek suba ñu ko mën a jëfandikoo loolu nag fi mu ëppee solo mooy amru diina mooy suñu mbiru diine tey maa ngi koy wax bu yàggul boo seetloo li ëpp ci jullit ñi bari na koo xam ne boo nekkoon jullit nga mu ne waaw waaye boo nekkoon lan mooy faratay julli lan mooy sunnay julli jullit yi mën nañoo bari lool waaye ñu ko ci mën a wax ñu néew lay doon. te gàllankoor bi lan la mooy boo ko bëggee xam bi nga jàng tasawudu sixaar te sa tasawudu sixaar arab fer ij ji sax taxul nga mën a jàng tasawudu sixaar xam faratey julli xam sunnay julli faslun fil ixsaan yi li sëriñ bi wax ci lixsaan ci tasawudu sixaar foo ko natt ci solo weesu na ko te mën ngaa fer ij ji te buñ la laajee lu sëriñ bi wax ci faslun fil ixsaan yi doo ko mën a wax parce que arab moo xaw a nekk làkk bu xaw a diis ndax faw nga fer gannaaw boo feree faw nga jàng mën a mën mën a liir boo demee bu mën a liir it doyut faaw da nga ko dégg boo ko déggee mooy tax fer nga xàmmee arafi yi gannaaw boo xàmmee araf yi boole boo boolee mën a liir boo liiree yi des nga dégg arab ba boo jàngee rek ku la laaj nga ne mën a ko ne ko nangam ak nangam ak moo tax jullit ñi bari lool ñoo xam ne bëgg nañ diine ji lool waaye xam-xam bi ñu war a am ci diine des moo tax ma ne thème bi mën nañ cee yokk jàngee ci saw làkk waaye rawatina seen mbiri diine ndax jullit yi tey kenn ku ci nekk yaa waroon am pas-pas bu wér am dogu gu wér bu lay dimbali ba mbooleem xeeti xam-xam yi njekk ci arab ñun ñoo war a jàng arab xam arab ba mën a gëstu téere yooyu xam la fa nekk waaye bu loolee amul nag jàppandal mën na am jàppandal mooy lan benn sëñ Ahmad Mbàkke nekk jàmbaar lool yàlla defal ko tawféex ci arab mu dem gis tasawudu sixaar mu nekk téere bu am solo mu xam ne sëriñ bee ko liggéey mu ne naa ko tekk ci wolof te loolu jàmbaar ju mag ju koy def mi ngi ci dëkk bii muy sëñ Abdourahmane Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko bëri na ñum jàngal bañ nekk ay borom yi xam-xam lool bay jàngal ñeneen te jotaayoo jotaayoo ñëw xam loolu kéemaan la jàngal nit ba muy jàngal keneen te jotaayoo leen loolu li ko maye mooy xarale yu yees yi nga xam ne suñ borom indi na ko ci kaw suuf ndax ci barab bii lay toog wax waxam jël téere bu am solo tek ko ci wolof akasa ñu jël wax jooju dugal ko ci internet bi fu ab taalibe nekk ci adina mën caa jote mën koo déglu boo ko nga xam ne lima ma waxoon sànq ci yekk gi rek mooy njëlbeen gi arab la mooy ndab li waaye dala koy yekkal ci wolof sëriñ bi nee na nangam ci arab waaye lii lay tekki ci wolof nangam ci arab lii lay tekki ci wolof nangam ci arab lii lay tekki ci wolof def ko ci masaalikul jinaan def ko ci nëju xalaal xaaj def ko ci tësudu sixaar tësudu subbaan ay téere yu baree bari yoo xam ne yooyu boo ko dajalee rek gis nga ñi yàlla defal tawfiix ñu xam li sëriñ bi wax foofa seen doxin mënta bokk kéem ci bëgg sëriñ bi rek waaw man daal bëgg naa sëñ bi mais boo bëggee sëñ bi xam-xam moo war a wommet sa mbëggeel googu waaye bu dul loola rek boo xefee di nga am gàllankoor ñi bëgg sëriñ bi bari na lool waaye ni ñuy toppee sëriñ bi ndax noon la lan mooy gàllankoor gi mooy dañoo yem ci bëgg gi rek waaye buñ ko gëstu woon faa ñu dem jéem a xam li sëriñ bi wax ci téere yi lan la buñ fa bàyyi ko nag mën koo topp. moo tax ñu ngi may nettali benn soxna soo xam ne dafay bind thèse ci njàngaleem sëriñ bi waaye nee na bi mu gëstoo téere yi ba mu ca bàyyi koo dane murit gi ci mbedd mi ak murit gi Sëriñ Tuubaa bind ci téere yi bokk. wax bu am am solo nee na murit gi mu gis ci mbedd mi ak murit gi nga xam ne moom la Sëriñ tubaab bind ci téere yi nee na bokkul te moo ne murit gi ci mbedd mi mbëggee la nga fa de bëgg nañ sëriñ bi waaye bëgg gi moo amul orientation lan moo koy orienté xam-xam xam-xam bi nag daanaka ci làkk wi mu ñëw moom nga jotewul muy arab gannaaw jote woo ca nag yàlla def na tawféex ay jàmbaar ay mag yu baax yoo xam ne ñu ngi koy jéem a tekk demal gëstu ji ko rek gis nga boo ko gëstoo ba xam ko am na loo xam ne yaa koy jombale sa bopp boo demee ci minahul miskiya sëñ Mor Lamine Diop Dagana mi ngi nettali koo xam ne gisagul sëriñ bi sax gisagu ko sax waaye nee na fas yéene na dootul mooy yàlla mukk ku gisagul sëriñ bi fas yéene moom dootul mooy boromam ndax bëgg gi mu bëgg sëriñ bi ak ni mu koy xememe ci xolam warta ànd ak muy mooy yàlla te tey loolu xool réew mi damay faral di wax ne mbooleem caaxaan yi ci réew mi buñ ci seppi woon loxo yi ñuy murit benn dootu ci xub benn barabu caaxaanukaay yu ci baree bari ñoo koy feesal bu ñu fa bàyyi ko bëgg a siyaare si Touba bëgg siyaare si nangam nangam ngëm googu lañ leen war a xam loo ne wérul ngëm gi bu wéree sëriñ bi dalay doy sëkk sëkk ci biir ak ci biti gis nga sëriñ bi ni mu toppee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñun buñ ko ni toppee kon juyoo du ndax bëgg na yonent bi lool yonent bee kilifaam lool kon ni mu toppee yonent bi ñi nga xam ne moom lañ jaarale seen diggante ak yonent bi muy seen wasila noonu lañ ko war ni toppee غابت امنا فم كاي وخي صاح محت محبتي المختار سيدنا خب المغانيه والاهلنا والولدا نينا بغ جيم بغ يونتي بي فرنا تي موم با منوتول بغ اي كوم منوتول بغ نيون منوتول بغ لنين تاخ بغ يونتي صلى الله عليه وسلم با امنا كو موس دي جاي اي رسول بو نيونا اي ورسول رك سيرن بي فاب آه، اي ورسول سيرن بي فاب waye bim dikke bis ne ko indil na la weñ gamal don indil serigne bi dana ko weñ mom amu ci genn soxna waaye baatu rasul bi mu ciy dégg rek moo koy fàttali yónni salaatu wasalaam bas ñimewu koo ngàntal xoolal ki fi mu toll ci kilifa waaye xoolal ni mu ko roye ba am na ku ñëw di sàkku ci moom ndimbal ne ko bu yàlla jàllee ak bi sëriñ bi da ko tontu ne ko ñooñu buñ jàllee duñu ma fa bàyyi nga di ma fa fekk yàlla jàll na yonent bi jàll na fooy fekk sëriñ bi kon moom dundam lépp fii la ko jeexal wajjaxtu kulliya lil wadoo di samadi za xidmatin lil Mustafa sama lépp laa jubale suñu borom tey liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon fii la sëriñ bi nekk taalibe yi nag li leen di dimbali ba cofeel gi ñu am ci moom mu mën a jur topp goo xam ne dafay jur ñu jariñu ci sëriñ bi loolu xam-xam faw mu am lan mooy xam-xam faw mu am mooy fa sëriñ bi leeral niñ ko war ni toppee loolu taalibe bu ne war naa def yitte ba xam bu dee ay arab la jar na nga dem jàngi làkku arab fexe ba fer ij fexe ba mën koo jàng ba mën a xam ne sëriñ bi nee na nangam ak nangam ba ba fa bàyyi ko mën koo topp kuy jëfee ndigal di bàyyi tere loo sori sori yaay ki jege koo xam ne doo jëfee ndigal doo bàyyi tere loo jegeñ jegeñ yaay ko sori wa ma ataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantuhu du la yonent bi jàppaloo jàpp leen lu mu leen tere bàyyi leen léegi nag balaa ngaa mën a bàyyi faaw nga xam liñ la bàyyi loo lan la balaa ngaa mën a jàpp faaw nga xam liñ la jàppaloo lan la te ki lay jàppaloo di la bàyyiloo faw ci aw làkk lay jaar wax naa sànq aay bi suñ borom wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi ndax bu fekkee déggantewuñ wuñ kon bu leen jot jottalee ndigal yéen nuñ koy jëfe moo tax wax na ci alxuraan ne xeet bu ne yonent ba ma leen di yebalal nañ mel rek lay mel kasa laxat jaakum rasulun min anfusikum ci yéen lay baxee ko nii ngeen di mel lay mel lenn la leen di rawee mooy wax yu gi yàlla suñu borom da koo defar ba mu baax mu yekk ci moom looloo ko wutaleeg nit ñi waaye yéenay bokku làkk mën ngeen a bokk col ka waaye boo ko jegee rek xam ne jikko ja moom leneen su ko defee nag bu la jottalee ay ndigal jottalee ay ay tere ci làkk woo xam ne yow déggoo ko dana dana jafe nga topp ko toppin bu rafet moo tax gëstu ci arab moom farata la ci bépp jullit parce que mbooleem jàngale yu baree baree baree bari ca la nekk alxuraan arab leneen li nag mooy toppin wi waaw toppin wi moom mën nañ la ko leeralal ci wolof ba nga xam ko bu wér a wér ba boo fa bàyyeekoo rek sa toppin sa toppin mën a rafet waaye bu fekkee nag leeru wala bu fekkee déggoo ko su boobaa nag toppin wi moom ñaaw rek lay mën a moo tax loolu lu lu xaw a bari la murit goo xam ne daanaka est-ce que sëriñ bi sëriñ bi amul morom rek la yem waaye boo nee est-ce sëriñ bi sëriñ bi amul morom war ngaa gëstu di tax mu ñàkk moroom lan la waaw da ci am solo lool. te loolu doy na sëkk ci nga xam fa sëriñ bi nekkoon mooy xoolal njabootu boppam gi ak ñim yaral boppam nee naa bépp pas-pas booy doxee bépp doxin wooy dox ne sa murit ci nii laa koy doxee natt ko ci ñooñu ba xam njabootu sëriñ bi nan lañ meloon. ndax lii may def daan nañ ko def ndax lii may wax daan nañ ko wax ndax nii may waxee wala nii may defee daan nañ ko defee bu wutee rek war nga xam ne baaxul xool sëriñ bi ñim yar tarbiya leen tarxiya leen yeggal leen seen borom bañ yegg bu wér-wér nga xool pas-pas bi ñu doxee ak fañ tegoon lislaam ak seenug sell seenug njàmbaare ci diine nga natt sa bopp xool kon li ma wax sànq dafay nekk paradoxe nan la ñuy demee ci ay barabu caax te sëriñ bi bokk na ci njàngaleem ci wolof ci ay wolof la ko waxoon li mat a def li matul a def li ëpp a def li mat a def mooy jaamu yàlla wax dëgg yàlla moo tax suñu borom sàkkuñu di wa maa xalaatul jinna wal insa illa liya'buduni maa uridu minhum min rizqin maa uridu an yutimon yàlla bu ñu sàkkee jaamoo tax moo tax sëriñ bi li mat a def mooy jaamu yàlla li matul a def mooy po matul a def li ëpp a def nag nee na bu ko sax sa xel xalaat mooy mooy yàlla waaye su fi mbëggeel nekkee nag te xam-xam wommatu ko rek mucc ca loola du yomb moo tax boo demee ci téere boobu di maj ma nóoree ni di nga fekk sëriñ bi di wax ne te dafay nettali kàddu ab shaayir taasil ilaaha wa anta tazharu xubbuhu waaw taasil ilaaha yow yaa ngi mooy yàlla wa anta tazharu xubbuhu te moo ne yaa ngi bëgg a feeñal ne bëgg nga yàlla ndax xel nangu na ko bëgg yàlla ba noppi di ko moy xel nanguwu ko man su ma bëggee sëñ Xaadim Abbas te bëgg gi dëgg ci man lam bëgg dama ko koy bëgg lam bañ dama ko koy bañ la te sëriñ bi wax na ne àgg naa ak foofu boromam nee na àgg na ak sama borom foo xam ne fa waay di àgg ak waayam ba lum mu bëgg mu bëggale ko ko lu mu bañ mu bañ la ko bi ko sëñ bi waxee ba noppi da foofu de àgg naa fa ak sama borom wax ko ci wolof. bo demé ci bindam di nga fekk mune ne lazi sha'al ilahu wal ilahu yashaau ma chitu bila durin wallahi lima ma moy lu soob suñ borom li soob suñ borom moy lima ma soob yow bo beugé sëriñ bi ndax kon warati nga moy yàlla bu fekké bëgg dëgg la bu dé dëgg warta ànd ma ra sëriñ bi wax la ci majma ma unóori ni ci netali waxu sha'ir ba tasil ilaha wa anta tazharu hubbu hadha la amri fil qiyaasi badiu loolu nee na waa ji da koo giñ sax giñ naa ci sama dund ne loolee ci qiyaas rek badion luñ fent la waaye mënta nekk law kaana xubbuka saadiqan la ataxtuhu su fekkoon bëgg gi ngay dëgg la ci yow la ataxtuhu kon da nga ko topp innal muhibba liman yuhibbu mutiu ndax képp koo xam ne bëgg nga ko te bëgg gi dëgg ci yow lala la war mooy nga topp rek su ko defee nag liy tax topp gi mën a tege ci yoon lii tax topp gi mën a am solo moo faw da koy dégg faw da nga koy dégg te wax naa sànq ñetti xaaj yi nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy déggee sëriñ bi mooy lim wax ñu dégg ko lim jëf ñu gis ko lim bind bàyyi fi bu dee wax gi tey ñun bokkuñ ci ñi nga xam ne sëriñ bi moo daan wax ñuy dégg ña dégg ñooy nettali ñoo ñee nettali ba mu yegg si ci bokkuñu itam ci ñi nga xam ne ba sëriñ biy jëf ñoom ñooy gis way ña nga ne bi sëriñ bi jëf ñom ñoo doon gis ñom ñoy netali sëriñ bi doon jëf diko netali ba ba li ci mëna yex ci ñun yex ci way lim bind nak mom dara ko ci dara dara ko ci nam mel non la mel ba légui te la gëna yaatu mag ñi daan nga téré bayé ko fi dem ba fu soré soré soré sore ngir lan ab téré bo soxla rek tay bari na téré bo xamne boko soxla fi nga tok mën nga fa jugi bari na téré bo xamné boko soxla fi nga tok mom mën nga fa bañu jog internet bi ngay tapé rek télécharger mu nek sa mu nek sa téléphone su boba nak lo bëgg a jàng mën ko jàng lo bëgg xol xool nga mën ko xol kon mu melni top njub ak top lu bax ak gëssu tay dafa jappandi lool dafa jappandi lool ba ci wolof bi may wax bo xef bo xolé ni ci jàng ci jappandé ni ci jàng ci amé solo sëriñ bi daan na wax ne dik leen ma wax leen ko ci wolof waa dikk leen ma wax leen ko ci ay wolof ndax wolof ci la te ci wolof lañ koy xamee moo tax tomb ya amoon solo te bari woon lool ba tey ku mel ni sëñ Alaaji Mbàkke ibnu sëñ Moussa Habsa liggéey bu rëy rëy bi mu ciy def foo ko natt weesu téere yu bare bare bare waxtaani sëriñ Tuubaa yi jataay yi taxe yi diyaafatu sama di garabu Tuubaa lépp di ay nettali yoo xam ne ci pas-pasu taalibe ci sëriñ bi fa mu nekkoon taalibe bu ko gëstoo rek noo doxee ginnaaw boo ko gëstoo yow la neex waaye leer na la ni sëriñ bi fii la nekkoon waaye gis nga gàllankoor bu ndaw bi ci amaat mooy téere yi dafay nekk ci làkku arab donte wolof na naam waaye loy mooy mooy mooy alphabet bi mu jëfandikoo alphabet arab su boobaa nag faaw nga jàng arab ba xam arab ba mën a liir wolof bi ñu bind ci arab mooy tax nga mën a jàng téere yooyu moo tax léeg-léeg yenn ñi nga xam ne sama kalaas gi yàlla defal na leen tawféex ñu mën a jàng téere yooya ñu koy yakkaat ci wolof latin bi nga xam ne moom la euh, Sénégal codifié ne moom lañuy ñuy te boo seetloo li ëpp ci réew mi ñi xam ABC moo ëpp ñi xam abajada loolu moom mooy li am constat la boo xam ne dafa am biñ gëstoo ci wàllu statistique mooy wàllu tollale ak natt nee nañ sénégalais yi yi nga xam ne ay ndaw lañ buñ dee téeméer juróom-ñett fukk yi dinañ dugg ci lekkoolu tubaab juróom-ñetti fukk yi sëriñ daara yi li ñu doon jàmbaar lool li fi lislaam di bari lool ñeneen ay jullit lañ daanaka buñ dee téeméer juróom-ñetti fukk yépp l'école lañ daanaka ñenn ñi ñooy raw rek dugg ci lekkoolu arab mën faa jànge alxuraan mën faa jàngee xadis mën faa jànge fiq mën faa xamee seen diine bu wér a wér te itam du yàq ci li ñu war a doxal ci àdduna dara kasa du ci yàq dara ndax suñu borom moo ñu ko wax kasa sàkkul àllaaxira naam waaye wala tan sa nasibaka mina dunya sa cër ci àdduna bu ko fàtte gannaaw nag li ëpp ci askan wi liñ dégg mooy ABC kon dina baax dina am solo njàngaleem sëriñ bi ñu tuxalal leen ko ci làkk woowu leen donte mën naa bañ a nekk français sax mais mu nekk wolof boo xam ne dañ koy bind ci niñ ko yoonalee ndax wolof am na nuñ koy bindee bindin bu jub boo xam ne Sénégal moo jël décret ci gouvernement bi signé ko ne nii la ñuy bindee làkk loolu bu ñu ko dugaloon ci lekkool yi xale yi ku jàng sa jàng lu mu gàtt gàtt boo fa bàyyi ko mën a bind sa wolof mën koo jàng su boobaa mbooleem xeetu xam-xam bu ñu ko yekkee ci làng woow rek di ko mën a jàng di ko mën a jàng te boo ko jàngee mën koo xam boo ko xamee mën koo topp téere bi ñu wax sànq mu tudd Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaar-jaar ak jàngale ci noonu lañ ko bindee nga xam ne téere suñu alaaji yi ca lañ dem rek nga xam ne boo demee ci xeetu. waxtaan yi mu indi ci waxtaani sëriñ bi boo ko doon natt dana tollu ci ay junniy junni mën naa yegg ba ñaari junni ñetti junni yoo xam ne téere boo jël danaan la benn ñaar ñett ñeent benn ñaar ñetti ñeent ba mu bari lool su ko defee ñu tànn ci ñu tànn ci lu toll ak juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu lañ jël dajale ko def ko téere tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaar-jaar ak jàngale jaar-jaar yi mooy Irwa Nadim ni ko sëñ Modou Lamine Diop Dagana indee ci ci ci arab am mbokk mu baax bu ñuy wax sëñ Abdou Khader Kebe di jàmbaar lool sax ci làkk wolof ci ñu koy saytu bu baax ngir mu dugg ci jàng gi wëlbatikuy nekk loo xam ne dañ koy dundal gis nga làkk dafa dafa dafa war a dund lan mooy làkk buy dund mooy làkk boo xam ne bépp xarala bu yees bu jamono indi rek mu wutal ko tur xam nga loolu dese na am ci wolof waaye fi mu ne français dafay am académie française nga xam ne tey li tax ñu tuddee portable portable te ay année ci ginnaaw portable amatoo kon baat boobu du am xam nga baat balaa mën a am mooy arab te ñi jàng arab xam nañ luy arab arab nekkul jëmm joo xam ne dafay ñëw taxaw ne nekk jëmm waaye ci jëmm lay taq waaw ci jëmm lay taq mi ngi mel ni nga ne rëy rëy moom mënta nekk jëmm ñoo taxaw waaye ci jëmm lay taq rek boo nee ngi sël mënta beru waaye ci jëmm lay taq kon faaw jëmm nekk fi ñoom ñuy soog a ñëw. kon bu ñu nee baatu portable portable moo am moo tax ñu tuddee ko ko léegi ñii saytu ban tur lañ koy tuddee ñooñu la ñuy wax académicien loolu nag lakk wu ne da koo war a am mbaa boo xefee rek ci dee la jëm tey boo seetloo jëfandikaay yu bees yëpp daanaka amoo baatu wolof booy jëfandikoo tudd ko tey portable la ñuy wax avion ñu ne avion waaye avion baatu baatu baatu baatu français la ventilateur baatu français la caméra baatu français la waaye bu fekkoon am na académie wolof te ku mel ni sëñ Jili Kebe bi ma tudd sànq ñi ngi ciy liggéey liggéey bu ama am solo nga xam ne mbooleem jëfandikukaay yi mbooleem xeetu xam-xam yi am solo yëpp ñi ngi koy jéem a yekk ci làkk wolof ba nga xam ne képp koy wolof boo mënee jàng luñ bind ci wolof rek su boobaa mën ngaa yér loola dolleekoo ca bu wér a wér ci làkk bi nga xam ne moom nga xam loolu ci liy dundal làkk ca la bokk bokk na it ci kéemaanug wolof mooy aw làkk bu fekkee moom la ñuy ci wàllu jënd jaay dafay nekk làkk yu dund te gis nga wolof noonu la ko suñu borom noonu la ko suñ borom def tey boo demoon Dakar ca ay marocain ngay gis sax ñuy jaay waaye loo wax ci wolof xam nañ ko waxaale baak lépp ci wolof lay dem ndax làkk la boo xam ne dafa am na ko fi suñu borom def moo tax bu ñu ko jëfandikoo woon rek lu bare bari mën na caa jaar ci njàng waaw lu baree baree baree bare ndax ñu ko dégg bari na ñim jàppandi ci ñoom bari nañ moo tax sëriñ bi mësu koo desal ginnaaw waaw sëriñ bi mosu koo desal ginnaaw tomb yam daan tomb lam ca jublu woon mooy ña nga xam ne arab ba dafay sori ci ñoom di si ñoom moro sànq maa ngi wax lu xawa a naqaree dégg mooy maanaam waxi yonent bi mën na laa jege lool te boo ko bëggee topp boo xefee ay weeri weer dana dox sa diggante ak moom te fekk kàddu gaa ngi la jege lool waxi sëriñ tubaa wala mbindam sëriñ tubaa mën na laa jege lool te fekk ne boo ko waroon a topp ay weeri weeri weer mën naa dox sa diggante mi ngi mel ni xes gi la jege rek tey Masaalikul Jinaan bu nekkoon sa wet tey jege na la lool waaye li ci biir nag boo ko waree topp ah diir ba mën naa yàgg ndax faaw nga seeti sëñ daara mu feral la ijji bu la feralee ijji di la ko toppal baat par baat benn par benn loolu nag mën naa yàgg lool fekk ne buñ la ko yekkaloon ci wolof rek da ngay jàng rek di xam waaw da ngay jàng rek di xam am na téere bu njëkkoon di tuddee ko jàng sa diine ci wolof lu mel noonu lañ ci jublu woon ndax ñu mel ni ñun dëkk ndakaaru bëgg sëriñ tubaa lool am cofeel ci moom lool bëgg koo topp te yow làkkub arab xamoo ca lu bari kooku pour nga topp sëriñ bi toppin bu jaar yoon du yomb nga xam ne boo seetloon li ëpp ci gone yi réew mi boo amee juróom-benn at ci lañ lay dugal l'école dem na bañ def case des tout-petits ngir njëkkanteeg alxuraan buñ defee case des boo ci dugalee xale bi ci ñetti at ñeenti at bu fa bàyyi ko dugg l'école bu bàyyi ko lekkool dem collège collège lycée lycée université kii kañ lay am jotu gëstu li ko war digganteem ak boromam ci lislaam ndax dana ko am ki jaar primaire jóge primaire dem collège jóge collège dem lycée jóge lycée dem université ñu ci baree bari dañoo ragal yàlla rek waaw ragal yàlla xam ne dee dee dikk moo tax mënuñoo ñàkk julli mënuñoo ñàkk woor mënuñoo ñàkk asaka bu fekkee gëstu nañ ba xam nañ koy defee boo amee sa alal bi la neex aj màkka waaye buñ la ca laajoon dëgg dëgg luy farata luy sunna nuñ ko war a defee boo juumee noo koy defaree bari na ñoo xam ne ku ci juum dangay ngay tàmbaliwaat julli gi xamoo ba xam juum gi nga juum mën nañ koo defar ci xab la wala bax da xamoo ba xam juum la goo xam ne mën naa bañ a aja tàmbaliwaat li ko def mooy ñàkk xam fiq parce que téere yi ko jàngale ni ma ko waxee sànq làkk wi ñu ko jàngalee da nga koo dégg waaye bu ñu la ko indiloon ci wolof da ngay jàng rek di xam faratay julli nangam la indil la ko sunna yi nangam la indil la ko boo demee ci jëwër na fiis sëriñ bi leeral gëm leeral xam la salaam ak baax da salaam tey boo ko teewloo dégg ko ci wolof boo juumatee jarul ngay dem di seeti téere bi nañ ko bindewoon ci arab waaye ni ñu la ko leeralee ci wolof rek waxal la ko noonu nga koy xamee mën koo topp moo tax xam-xam ma te yittewoo lool te xam moom làkk woo ko jàngee xam ngi rek am solo waaw xam ngi rek am solo te loolu nag eh, dimbali ci sëriñ bi dafa am solo ndax wax naa ne ba ba bisu yàlla tey bii dafa mel ni tubaab bu nekk ab murit dafa yéem tubaab boo xam ne dafa ñëw nekk murit di gëstu mbiri sëriñ bi daf ñuy yéem ba léegi mel ni sëriñ bi nit ku ñuul la ko taxoon a jóg déedéet <laughs> sëriñ bi kay njariñ lim yor loolee ku ne xam ne ne ku yàlla bind sa njariñ a ngi ci wallahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darar ki dégg anglais nak te xamul arab koku jotali ko njangalem serign bi ci lak yu deg dana am solo ki dégg français te arab degul wolof koku tam jotali ko njangalem serign bi ak mbaxuk serign bi ak jar jaari serign bi dafa am solo dañ faral di wax ni nitu yalla donte mi ngi boo jëfewul ay ndigalam bàyyiwoo woo ay teram yow moom taxu ko fee donte mi ngi fi sëriñ bi lu mu baax baax baax sëriñ bi lu mu kawe kawe te nekk fi yow jëfewoo ndigalam bàyyi woo teram yow daa mel ni sëriñ bi newu fi bu fi nekkatul it gisoo ko ci saayir waaye bàyyi na fi ay ndigal bàyyi na fi ay tere yoo xam ne ku la ko gën a topp gën la koo jege ku la ko gën a topp gën la koo jege lan mooy tax na nga mën koo topp mooy nga gëstu ko ba xam ko su ko defee nag moom laa wax sànq ne sëriñ bi yemul moom képp ci bind ci làkk wu arab waaye defar nañu baax ñoo xam ne seenu xereñ ci làkku wolof foo ko natt weesu na ko ndax xereñ ci wolof bokk na ci li koy wane mooy mën a bind te lim naa sànq sëñ Moussa Ka ci wàllu mën a bind lu mel ni xam na bi boo ko xoolee lu mel ni boromam boo ko xoolee te lépp ci wolof la ko defal danga koy jàng rek xamal sa bopp ku mel ni sëriñ bay jaxate li mu wax ci xeeti njariñ li mu wax ci xeeti mbind yu ama am solo boo demee fi mu naan la defar sa xol bi ba sa xol bi ler leree ka melax moo gën di defar ay néeg ak i sàkket yu fatt tara ña dëkke woon taaxi kaw jëf lu bon ñu ngi tey ci sëg ñuy cawi yar foo tollu dégg faraj xool wax ji ni mu te xoolal li ci nekk nee na defar sa xol bi ba sa xol bi ler leree ka melax moo gën di wut ay néeg ak i sàkket yu fatt taraj ñi dëkke won taxi kaw tay jëf lu bon ñi ngi tay ci sëg yi ñuy cawi yar fo tollu dégg fa rek li bo démé ci masaalikul jinan fekk fu ko sëriñ bi wax man yanzurul khuluba wa saraira duna lazim min yakunu zahira suñ borom moy ki nga xamné limi xol ci ñun moy suñu xol yi ak mbóot yi ci bir xol bi wulis la fay kon kay defaral sa xol bi ba sa xol bi lér lér rek ndax fa la yàllay xool waxaat ba tey ne bari ala taxu la gën néew ala taxu la bon lay tax nit di gën ak a ak a bon ca xol ba leen nëbba ko boofu wax ju gàtt waaye xoolal lim ëmb ci maanaam te sëriñ bee ko defal moo tax ndigalal sëriñ bi la jëfee ci woy yooyu mu woy ku mel ni sëñ Mor Kayre Kasa ku mel ni Cheikh Samba Diarra Mbaye boo demee ci Jazbul Majzub li mu wax ci xeeti kàddu yu ama am solo ci wolof foo ko natt weesu na ko beneen mag bu baax nga xam ne mooy suñu bunt ci yoonu murit naa Cheikh Moussa Cissé deug ci daru kër mo xaraja waxna ay xeeti wax yu ama am solo yo xam ci wolof lako wax bokk na ca joxe ñett la maye sarax addiye mu ne maye kula neex sarax ko tane addiye ka la ci yalla te li bo demé ci ñangalim sëriñ bi fekk ko ci li abdin muridin sadiqin lahumoo bi khidmatin aw bi hubbin aw haddiyaati gis nga addiya mom la mujjé wax waye neena texé na murid abid li abdin muridin sadiq da ngay nekk jaamab yalla nek murid bo xamne ne bu deugal nga xamne do ne yem ci murid kasse waaye deugal nak sa murid moy ko xamne ne pas-pasam yàlla kase la ci bir ci biti su boba nak bu la joxe ndigal nga jefe bu la tere nga bayyi bo doxé dir bu gatt rek sant yalla bu yor na mbooleem mag ñu toppoon serigne touba niñ sante sen borom ci top giñ top serigne bi non ngay sante suñu borom ndax tawfiix gi nekk ci jëfee ndigal bokk na ca mooy buñ ñu la newoon suba la àdduna tukki yow doo defaru xam nga sëñ Fallou Mbacke dara wax lu ama am solo radiyallahu anhu nee na bépp ker booy bañ dee fekk la fa nee na bu fa féexul bépp ker boo xam nga bañ nga dee fekk la fa bu fa féexlu te lii boo demee ci masaalikul jinaan fekk fu ko sëñ Tuubaa wax wadum alal lazi alayhi tasbutu law jaakal mawt fi maa xat sabatu gis nga kii dala ko wax ci arab bu fekkee dëgg nga arab jàng masaalik di nga ko fa fekk waaye am na fu la ko sëñ Fallou wax moom la ñuy wax naa montre yu baax yi ñoo bokk heure benn waa ju baax teg ci ne montre yu baax yi ñu réglé waaw gis nga fi mu ne mbooleem murit yi réglé xam ni ñu war a toppee sëriñ bi dëgg-dëgg te teg ca seen tànk ñooy bokk benn pas-pas seen pas-pas day roofaloo même seen i kàddu sax boo koy gëstu mën ngaa wax ne kii lii la wax waaye bi ma gëstoo kii nii la ko waxee am na beneen mag bu ñuy wax sëñ Malick Bassine si ku yàlla may ci dégg wolof ak mën a wax lu am njariñ ci wolof bokk na ca lan daan wax xamut bëggut bëggut wutut wutut amut te boobu sëriñ bi la ciy tegtal nee na ku xamul sëriñ bi doo ko mën a bëgg ku bëggul sëriñ bi doo ko mën a wut soo ko wutut nag doo ko mën a am moo tax mu ne xamut bëggut bëggut wutut wutut amut daan wax it moom sëñ Malick Ba Sine ne buñ ne ñi baax ñu tuuti lañ nee na yow fexeel ba bokk ca rek. xam nga toog naan ñi baax dañoo tuuti ñi baax bariwul nee na amul solo li am solo mooy luñ tuuti tuuti yow na nga ca bokk boo seetloo ñi indi xeetu njàngale yu gàtt yu ama am solo ci saw làkk daf lay dimbali bés boo fi bàyyi ko topp ko dara du la ca gàllankoor te pour nga wattu ko téye ko dafay nekk lu jàppandi ci yow liñ la làkk ci làkk bi nga dégg buñ la ko waxee rek wattu ko day daal di yomb moo gis nga ñuy jëfandikoo wàllu nasma woy ku mel ni sëñ Mbay Jaxate sëñ Musaa Ka woy yiñ woy dafay neex a jàpp lool même ba ci sëriñ bi boo demee ci jawhurun nafis bi mu la koy woyal dana la mooy téere bële rek laxdar yi kee dafa ñëw wesar moom mu ñëw woy ko boo demee ci masaalikul jinaan day ñëw fekk gaa yi jël xaatima tasawuf wesar ko moom mu ñëw woyal la ko ngir mu neex a jàpp boo demee ci mawahibul xuddoos sëriñ bi lim jàngale ci xeetu tawhid ci mawahibul xuddoos waaye ku déggul arab noo koy jëfandikoo ku déggul arab noo koy jariñoo kon borom xam-xam ci yoon wi war nañ dimbali ñi bëgg sëriñ bi te sëriñ bi yekk xam-xam bu baree baree bari ci làkku arab ñoo jottali ko ñi bëgg sëriñ bi bëgg topp sëriñ bi toppin wu rafet ci làkk wi nga xam ne moo leen gën a jege muy làkk wolof loolu nag mënuñ ci woon a ñàkk njukkal ku mel ni sëñ alaaji Mbàkke ibnu sëñ Moussa sa ku mel ni sëriñ Xalil Mbàkke ibnu sëñ Moussa sa am na téere bu ama am solo bu mu def tuddee ko góor yàlla gi te lim ciy jàngale lépp mooy dund ak jaar-jaaru maam Thierno Birahim Mbacke Ndamanda te téere bobu su fekkon defuko def ko ci lak wolof ñi nga xamne wolof rek lañ dégg lu xam ci mam cerno ku bax la won rek ku fonkon kilifaam di magam di di leppam la ci ngay yam waaye pas-pas bi ak yitte ji ak ngor ga won ci mom ak djub ga won ci mom ak defaru geek sel ga won ci mom lako boromam jaralo nim topé toppee bi lolu pour nga xam ci dara du yomb te ku bëgg rek xam jaar jaaram fay am solo parce que jaar jaar yim jaar dafay nekk nattukaay nekk loo xam ne misaal lay doon ci yow pour yow boo fi bàyyi ko fooy jaarale sa dund am na ko moo koy nettali dafa mos di arrière otoom mbëkk beneen oto te moo ne oto bi mbëkk borom newu fa bu ko neexoon dem waaye nee na sañ ta dem ndax xelam ci lim dem mooy nettali nañ ne sëriñ bi fasam mos naa dugg ci ay tool am lu mu fa joggi waaye wax nañu sëriñ bi fa la toog di xaar di xaar di xaar ba borom tool bi ñëw sëriñ bi jéggalu ko ba mu jéggal ko sëriñ bi soog a wér léegi taalibe bi gëstu lii ba xam ko ci sëriñ bi bu fa bàyyeekoo nan la war a mel te ko ca war a roy moo tax mu ne bi mu arrière ba oto mbëkk oto jàmbur rek fa la taxaw xaar xaar ba borom oto bi ñëw ba mu jéggal ko ba mu jéggalu ko jéggalu ko ba mu jéggal ko muy soog a xam jaar jaari waaye ju baax lii lay jëriñ moo tax suñu borom moo ko njëkk a def laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ni mu doxalee ni mu defee dafa gën kon faw da ko ci jéema a roy sëriñ bi ci maanoom ci bañ a lor kenn bañ a jël xàq kenn wax nañ am na mag mu mas yebal mu am lu mu koy jëndal bi mu ko jëndee ba ñëw sëriñ bi ne ko dawal gaaw dellu ba mu delloo ndekete lañ ko delloo daa ëpp xoolal lii bu ko taalibe yi xamee ci pas-pasu sëriñ bi yónni nit mu dem ñëw indil la weccit bu ëpp te yegg seegul sax sëriñ bi ne ko dellu ba mu delloo ka ko jaayoon la mu doon fàggu ne ko la ma la delloo daa ëpp kon ñun nuñ war a mel ci njub que ndax suñ sëriñ noonu la mel suñ kilifa noonu la mel te taalife taalibe moo war a nekk seetu sëriñ bi waaye bu fekkee da ngaa bëgg taxaw ci kanam seetu bi nag bëgg wone loo xam ne ki ci kanam seetu bi melu ko yaa ngi koy bëgg a indil loo xam ne bokk ci. lolu tali bu ne war nako baye xel ndax al waladu sirru abi ku bëgg xam sëriñ taalibe ngay xol magña ña mujjeewuñ puso bi mu reer bo jàngee gor yalla gi bobu nga xam ne sëñ xalil moko bind di nga xam mam maam Cerno mi matna mat na touba pas-pas bi mat nako ngor ga mat nako, djub ga mat nako defaru biir ak biti mat nako boko nak te yow nga kon war nga ci mëna jàngé lu bari bari bari njub mom ku koy jaay mourid mu wara lam sel ku koy jaay mourid war naa lam defaru biir ak ku koy jaay mourid war naa lam ndax kilifa gi mo ni ku àndul ak mom dara la dul mom yalla bëggul mom ku dudd ba ku bëgg yalla ak top yalla ak xol bu sel na fekk señ ba jaxate ko wax ku bëgg yalla ak top yalla xol bu sel fekkil bam te fekk si nañ sëñ bi kon kay xol bu sell beeg bëgg yàlla geeg topp yàlla war naa mën a rogalaat ci ñun ndax lépp luy tax mu rogalaat ci ñun sëriñ bi def na ko bu dee wax wax na bu dee jëf jëf na bu dee bind bind na bu dee defar defar na moo tax mu ne jëf nañu gis te digle na lii ak a way wàcc na mosula moy mosula fo moo tax mu teg ci ne euh, Bàmba lu sellul bokk ca xaalis lu weexul bokk ca wurus lu sellul bokk ca nañ bàyyi fo jullit du fo nee na Bàmba lépp lu baaxul bokk ca lépp lu baaxul bokk ca te tey bëri na lu baaxul luñ koy askanale ndax taalibe yi ñooy sëriñ bi bëri na lu taalibe def ñëpp ne yoonu murit nangam nangam nangam yoonu murit nangam nangam fekk kenn ko def kenn ko ko def nag bu meloon na ñëpp war a mel jàngalee yegg ca moom pas-pasu sëriñ bi yegg ca moom doy na sëkk ci jàngale xoolu xaaloo li yarkan لأبواب صلاتي تخص جوائزة لكل ما خير فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولا سرادي غير علم وديني لي بوñ ko jangalon mouriti tek len ko ci wolof ñeneen pass pass bi la serigne bi doxé kon kay lu way gatt gatt ab gëssu lu way gatt gatt ab yitté warna gor gorlu ba diiné ñor ko gëreumal boromam ñor ko ndax kim andal motax xalu li yarkan li wa bi salati nenañ ma na dem ci buntu wuri taxus jawaïsa tux ne ku la maa xiini danga nga fa jëlee ay koom yoo xam ne dana la doy sa diiru dund sëñ bi lu mu leen wax fa qultu ma daal di wax ne xasbiya rabbi waktafaytu bihi yàlla doy na ma te doyloo naa ko walastu radia geyra ilmi wa diini te gërëmoo lu dul xam-xam ak diini fii la sëriñ bi nekkoon gis nga kii ku nàmp ci moom nee naa ay créer ay of naga nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne dénk nañ leen alalu réew mi bu buñ ko jëfandikoo ween nañ ko war a jëfandikoo ci leen réew mi yoonal buñ ca noppee yooyu lañ leen di toppee ngir ku ci luubal dara ma ne yow am na créé yi boo xam ne mooy créé yi pire bi kenn dul raw koo koy yàlla yàlla tàggat la ba nga xam ne sa borom ngay fuublu ci lépp kii boo ko dénkee bi ca yàq dara parce que ragalu la yow mi ko dénk yàlla la ragal moo tax réew mi ñu soxla lool sëriñ si te bu ma nee sëriñ si mooy sëriñ si mat sëriñ ndax sëriñ si ñoom ngay topp ñu yóbbu la fa sëriñ bi daan yóbbee kasa isil murabbi laa yuridu fil murid ilal wusula naajiyan minal marid sëñ Tuubaa nee na murabbi sëriñ ba piir yarkat ba du namm ci ab taalibeem dara du dul yóbbu ko ci yàlla bu la yóbboo ci yàlla ba nga yegg ci suñ borom nag mënoo def lu ragal yàlla mag ña fii lañ nekkoon su boobaa doo tooñ doo fayu te itam lu la waaye def nga jéggal ko te yàlla rek tax xam nga kiy def lii kiy liggéey lii mi ngi dimbali ñep ndax su baba agression du am togn du am sàcc du am dogal du am ndax dañ la defar lan mo la defar nak moy dajje bi nga ak sëriñ bi ak namp bi nga namp ci mom ba fessal del su baba nak bo fa bàyyi ko si lépp njub ak ku sel kep lay tegtale waye talibi nak su fekke yegul fi wala amul tawfiq jojja mën na doxé no xamné ne wul ak li nga xamné ne lañ non lañ wara doxé té lolu bërna ño xamné am nañ ci moo tax may faral di sant ko gërëm bu wér a wér ñi nga xam ne ñi ngi góor góorlu ci lu dimbali murit yi ñu xam nan lañu war a toppee sëriñ bi rawatina dinañ ko wax ci làkk wolof loolu dañ ci seppi ku mel ni sëriñ Sàmbay te bëri na ñoo xam ne téere yu bari yegguñ ca téere yu bare bari gëstuwuñ ko waaye ay waxtaani sëriñ Sàmbay la ñuy teewlu ay waxtaanam la ñuy teewlu te mu leen di wax fa sëriñ bi nekkoon la sëriñ bi daan jàngale bañ jaaree fa ndax defaru moom pas pas pas la rek xol bi ngay fexé bañ duy ci yalla bam jeex tak su boba nak ki nga xam sa xol mom la bëgg do bëgg a mom ci dara do bëgg a mom ci dara ko bëgg mom lu mu bëgg nga bëggale ko ko lu mu bañ nga bañ la ko ko te sëriñ bi boko jégué mu fexé ba nga jégué sa borom wallahi faral di wax nee naa boo kilifa gi te mat kilifa rek dafay fexé ba nga jégué yalla bo jégué yalla rek defal waye budé yow ci kilifa gi rek nga yam kilifa gi di nga dugg fum la dul fekk di nga wax lu dul dégg bo duggé fum la fekkul nak lo neex def lo neex wax waye bo jegee kilifa gi mu mat kilifa day fexe ba nga jege sa borom bo jegee sa borom nak mëno wax lu yàlla déggul mëno jëf lu yàlla gisul mëno fas ci sa xol bi du suñ borom xam mo ramna jàngale bu sëriñ bi daan wax ne wala takun min ghafilin bu len bok ci ñi sagal inde niyati bu ngeen di yene mel dañ ko laaj lutax tax mu ne inna allaha alimun bi zaati sudur bu ngeen di yéene bu leen sàggan ndax yàlla xam ne li ci biir dënn yi sëñ bi teg ne wala takun min al ghafilin bu leen bokk ci ñi sàggan indal xawli su ngeen demee bay wax mel dañ ne ko bi lu mu ne qad sami allah yàlla mi ngi dégg seeni wax sëriñ bi teg ne wala takun min al ghafilin indal amali bu ngeen demee bay jëf bu leen bokk ci ñi sàggan mel dañ ne ko mu ne inna allaha basirun bil ibad yalla mi gis ay jamm léegi bu la serigne bi yare ba nga xamne suñ borom gis gim lay gis ci mbooleem sey jëf yang koy bàyyi xel sa su ne da nga fexé ba jëf ja suñ borom kërëm ndax kat isil muridu la yuridu abada ghayra rida rahman xeesu xasana murid pire moy ko xamne da ko tax moy ngeerum borom kep su boba nak gannaaw yalla nga gis sey jëf da ngay fexé ba jëf ji gis mu nek jëf jo xamne ju kaddu gi nga xamne mi ngi koy deg it da ngay fexé bam nek kaddu go xamne ne kaddu guy jur ngërëm nga li ngay yéene ci sa xolit da ngay fexé ba mu ne borom bu ko xolé mën na la jural ngërëm ndax innamal ahmaru bi niyaati yéene yi ñu koy fayé ci jëf yi ñu koy fayé ci yéene nga xamne xol bi ngay defar ba lo yéene mu baax su boba nak lo wax mu baax lo jëf mu baax te défaru gi dégg sëriñ bi moo koy maye moo tax wax naa ci njëlbeenu kàddu gi ne bëgg sëriñ bi képp yem ca wóoru li gën a wóor mooy bëgg sëriñ bi gëstu sëriñ bi dégg sëriñ bi topp sëriñ bi texe fii texe fa jëm su boobaa lépp loo dégg sëriñ bi dib ko murid rek yaa ngi ca biir kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza mubaadu bépp murit boo xam ne ci man la wéeru rek kooku moom lor du ko jege te itam texel léegi nag boo dee murit nag da nga naan maa ngi ci biir mais lu la ci boole ndax pas-pas bi mate na ko ndax jëf ji mate na ko ndax sell gi mate na ko ndax jub gi mate na ko kan kañ la ko yooyu di mate mooy gannaaw boo gëstoo sëriñ bi xam li mu wax lan la li mu woote lan la ni ñu koy toppee nan la nga doxee noonu moo tax bañ na ko ba boo demee ci sifaatu saadixil murit lan ko daanalee mooy xaw fa ixtiraar bañ ko lor rek bañ ko waru rek waru moy nga yaakaar yaa ngi ci biir fekk yegsee ko sifatu sadiqin muridi bi ikhtisari arbaatun nazamtuwa xaw fa ixtiraar melo murid sadiq serigne bi neena ñent kep la te dama ko nosé nosé moy dama ko def ay wey ngir mu neex japp jàpp xaw fa ixtiraar rek ragal ko waru asidduqu fi mahabbati cheikhi abad moy bëgg gi nga bëgg serigne bi na nga ci deggu ndax boo ci dëggoo rek lam cay teg ca lay jàppandi su ma imtisaalu amri yi xëy su war soo bëggee sëñ bi daal tamit dëgg ci yow ndigal yim lay digal di nga ko topp moo tax bëgg nañ sëriñ bi nañ gëstu ndigal li ndigal li nag moo fi waxtaan ci téere yi lam la wax ci masaalik lam la wax ci nahju lam la wax ci xoqa lam la wax ci ilhaamul wadud lam la wax ci téere yooyu nga xam ne moo ko bind tasawudu sixaar tasawudu shubaan mawaahibul xuddus ay xit atun taqtau baynal murid ko ci làkk wi nga xam ne li ëpp ci askan wi moom la ñuy wax mooy làkk wolof tudd ñaar ci sàng sëñ Abdourahmane macha allah waaw daanaka téere yu bëree bari ci yuy sëriñ bi ñun ñi féete ndakaaru xam nañ dayoog njariñam ca taalibe a nekk foofu waaye ñi ci xam-xam ñor bu xam-xam ñor nag da koy dégg rek waaye doo jox benn yitte xam-xam ba wuti waxtaan ya ba teewlu ko bu mën caa jar loolu nag ku ko yàlla nattoo moom jar ngaa yërëm su ko defee li ñuy li ñuy daanalee rek mooy sànq dañ wax loo xam ne lu lu mat a bàyyi xel mooy diggante sëriñ bi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun dañ cee war a mën a jàngee suñ diggante nun ak sëriñ bi nga xam ne diw li mu fiy nekk yépp pas-pasam lan la mooy leeral liggéeyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daje feek ñu doy waar nag mooy français yi suñ mbokk tubaab bi ñuy ñëw ci réew mi ak li ñu ko tuumaal lépp lenn képp a nekkoon seen pas-pas mooy li ñuy wax coloniser jël aw réew tënk ko su ko defee mën di ko exploiter économiquement socialement culturellement ba saa su nekk yow ngay mën a dund ci moom te loolu du lu dakk ba bisu yàlla tey bi tey la gën a am moo tax tey lañ gën a soxla roy sëriñ bi tubaab bi da koo fekk ak pas-pas tubaab bi fekk kook yitte tubaab bi fekk koo ki kilifa te moy borom tuba bi bëgg dox digënté mak mom waye dégg nga la sëñ Moussa ko wax amul ko jaxasoog tuba juroom yaari at yu mat te yàquñu tawhidam kudul dul tuba nañ mëne yaq nañ bëree pexe waaye jéemal nañ sëriñ basom mëna luñ ko dara lolu ñun talibé yi war nañ ko ci rey ndax tuba bi tay la fi gëna né bo boo dajawul ak mom ci bëdd mi sax naan tuba ba waye tay télé bi ñaata xéetu télé dugg ci Sénégal ñaata xéetu programme ñoo fiy dugg ñaata xéetu jëf ñaata xéetu wax ñoo fiy dugg te ko fofu internet bi tay ban frontière mo am nan lañuy def nak ba am pas-pas bu wër ba nga xamné ne yooyu leen di ay mbalit yu sotteeku ci ñun duñu fàbbi ci dara nga xamné ne fi bayé ko won sax dem ba seen réew ya mënuñ soppi ci yow dara mënuñ yok ci yow dara ndax da nga lolu am nañ def am tawféex jojo am sam benn xarit bu jàngee France nee na jamo yam fay nekk ñoom lañ daan wax mooy fii ñaara fi nekk Touba wala tubaab waaw Touba wala tubaab mooy nga ñëw bokk ci daayira bi muy Touba wala nga ànd ak tubaab bi di tubaab ni ñoom rek nga xam ne da nga ciy gis koo xam ne bi muy bàyyeekoo Sénégal am naa ci ñu ma xam ñoo xam ne bi ñuy bàyyeekoo Sénégal feruñ ijji fer ijji sax defuñu ko waaye dem ca réewi tubaab ya ngir jàng biñ fiy dellu si fer ijji xam ci téere sëriñ bi lu baree baree bari nekk ay murit yu dëgga te fan lañ ko jëlee ca réewi tubaab bi sëñ tubaab amul ndam am na ndam te ndam loolu daa war a gën a yaatu ndax bayal na kilifaam waaram ci jottali liggéeyam boo ñëwee ci bëy ji loolu lay wax leen Moustapha nawetu maa yu jaddidu sunnatuhul xaraa wa inni ahmad li ma tax a jóg mooy beesal sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunna nag laay wax na ñu bari xamuñu ko waaw ñu bari xamuñu ko ndax léeg-léeg nga dégg ku la ne lépp loo xam ne lu sosu ginnaaw yonent bi rek génn na sunna waaw lépp lu sosu génn na sunna ma ne déet bi làkkuli wolof te yow mi koy wax ay wolof ngay làkk sax yonent bi làkkul wolof ku kullu bid'atin dalaalatun wa kullu dalaalatin fi naar daal di koy tekki nag la nga tekki kay yonent bi mosu koo wax kon boo ne woon da nga yore yonent bi làkkal arab rek noppi waaye sunna moo yaatu lool te ku gën a xam sëriñ bi amul gis nga fii lim wax nazafatuhu kulliya min al-lahwi taharat mu teg ci ne wa sunnatuhu insha rabbi ubayyin wa sunnatuhu sunnaam nga insha rabbi ndéem soob na suñu borom ubayyinu moom lay leeral si kon kii lum la jàppaloo génnul sunna lu mu la bàyyiloo bàyyil xam ne doo ci amee dara baada salaatin la tazul bil ali wa sahbi la udul wa biya jaddi di sabil bila idan awala loolu yëpp di wane ne li ko tax a jóg mooy beesal yoon wa nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon beesal gi mu koy beesal nag faw mu ànd ak ay ndigal faw mu ànd ak ay tere ndax mooy li takk diggante taalibeeg morom su ko defee ñi nga xam ne nag ñooy nekk léeg-léeg ci diggante njàngaleem sëriñ bi ak taalibe yi war ci góor góor lool ndax di wax mbooloo di la déglu te pas-pasu wax ji nekk leneen lu dul ñu jëriñu dëgg dëgg jëriñu ci sëriñ bi te bu ñu fi bàyyi ko nekk ay taalibe dëgg-dëgg loolu ku ne xam ne ne bari na ci yoon xam nga arab dafa sori te ñi ko dégg bëriwul ki yàlla defal tawfeex mu dem gëstu ko xam ne sëñ Tuubaa nee na nangam ak nangam ak nangam boo seetloo waxtaankat yu bari li ñuy wax mooy luy nit ñi rek te xam nga kuy daan doo yëgati kenn kuy daan doo yëgati kenn waxal nit ñi kan mooy sëriñ bi lan mooy ay ndigalam lan mooy ay tere ba buñ fa bàyyi ko mën a topp sëriñ bi topp bu rafet ñun taalibe yéemu nañ ci sëriñ ba noppi sëriñ bi yéemeem foo ko natt weesu na ko waaw nee na walli bu ne xam na ne kaw nii li xaalixil baraaya aaya aw kaw tiif la bu suñ borom fa la yam yéemu nañ ci sëriñ bi li des nag mooy jàngal ñu kan mooy sëriñ bi ak nañ ko war a toppee day nodd waaw moo tax lu mët a bàyyi xel daanu baax na lool waaye daanu ci jëfee ndigali sëriñ bi daanu ci bàyyi tëree sëriñ bi mooy daanu gi gën a mat te mag ña daanu gi lañ daan daanu nekkul da ngay daanu yëkkati xaalis joxe xaalis tey la xew te bari na kuy wax lim yàkkamti mooy ku daanu ba làmbali ci poosam joxe am na solo nag mën ngaa teral ku la yée ci sëriñ bi mais li ëppaat solo nag mooy gëstul sëriñ bi xam lim wax xam lim digle xam lim tere nga fas yéene daanu nag ci topp ndigal yi ci bàyyi tere yi su boobaa sax sant yàlla fii lay tàmbalee waaye yàgg ma bàjjal doo wuteeg sëriñ bi ci dara ndax dara du la gënal wuteeg sëriñ xalaatoo ko sax sa xel du ko jege te naay faral di wax ne buum gi yow taalibe ci sëriñ bi buum la goo xam ne taalibe boo ko yor ndax sëriñ bu ne du ne tey nga doon sama taalibe déedéet mais taalibe bu ne sañ na ne tey nga doon sama sëriñ léegi nag su bum bi dëgëree su buum bi woowee comme ba nga xam ne at ba àllaaxira du dog loolu ca taalibe ba sëriñ bi mel na li mu war a mel yow nag boo rafetalee sa toppin rek buum googu du dog àddina du dog àllaaxira misaal bi ñu ciy mujjee joxe mooy dafa am ku mës a gént mbooloo mu bay topp ci ginnaaw sëriñ bi nee na bi mbooloo mi bari topp ci ginnaaw sëriñ bi ñu jékki dugg ci lu mel ni ak lëndëm biñ duggee ci lëndëm gi ba génn mu gis ne sëriñ bi ñu néew ko topp bi mu ñëwee nettali ko sëriñ bi Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi dane ko sa gént gi firi na boppam waaw sa gént gi firi na boppam bi ko yàlla indee ci àddina wooteeloo ko mu woote sëriñ bi nee na ci biir woote gi àddina daf koo toppaale nee na bi ko àddina toppee nag am ñoo xam ne li tax ñu wuy si sëriñ bi mooy àdduna miñ gis ci ginnaaw sëriñ bi mu ne ko ñooñu nag fa àdduna yem fa la ñuy yem Lalu musiba la xam nga waxna sank fu ko sëñ musa ko wax ku ne ci man ngir kom yi ak si ma jox la yoyu sama batin delusi, si batin bi mooy lan xol bi pas-pas bi yitte ji sel gi biti loolu la yalla xol rawana sank bi ko teg fa rabbu yanzur ila ma batana wal khalqu yanzur ila ma alana nit ñi li ñuy xol moy li ci biti yalla suñu borom nak li muy xol moy li ci bir bu dee yow nag sa biti rek nga bëgg mu taaw sa biti rek nga bëgg mu defar ci sëriñ bi sëriñ bi yor na ko ba mu doy sëkk waaye sëriñ bi yor na baatin boo xam ne boo ko toppoon te jariñoo ko sa baatin defaru ndax sa baatin la yàlla xool loolu nag taalibe yi di ko bàyyi xel foo ko natt ci solo rek weesu na ko moo tax mu ne la wa zayyinil baatina mawdi an nazar rabbil anaami badalan aman zahar booy taaral na nga taaral sa biir ndax fa la yàlla xool kon nag yàlla yàlla taaral suñuy biir ba lépp lépp di lu sell biir ak biti def ñu ay dëgg dëggi taalibe Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul suñu pas-pas sell suñu yitte sell suñu jaayante sell ci barke yonent bi ci barke weeru koor ñu ngi tënk fii kàddu gi di nuyu wat bu baax nag di nuyu sëñ Kara sëñ Ahmad ñu ngi lay nuyu baax di la sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ci relation bi nga xamante ne moo dox ci diggante nitu diine ñi ak nitu politique bi wala relation bi nga xamante ne moo am ci diggante diine ak politique mu fas yéene ci indi am njàngat nag sukkandiku sukkandiku ci li nga xamante ne mooy xew ci biir Sénégal mu nekk loo xamante ne lu am solo la ndax lu ñu dund la lu mat a bàyyi xel tamit ci képp koo xamante ne ab jullit nga ndax nga xam naka nga cay doxe euh, xamaa tamit ñu fàttali mbokk yi rek ne képp koo xamante ne bëgg nga ñu topp ci jataay yi bu dee ci rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba ak fële ca Niakhène waa Darou Moukhty ak Niakhène FM ñoom waxtaan yi en lañ koy def Darou Moukhty tamit dana ko baamtuwaat suba maanaam waxtaan yi bu jàllee tey bu buñ demee ba ci suba sa ñaari waxtu dana ko baamtuwaat ba tey tamit ku ñu topp ci Lamp Fall FM wala Diso FM wala RTS 3 Mbacké wala Fajri FM ak Zik FM ak Beno FM ak Jant FM rajo yep yëpp ak RFM rajo yi yëpp ku ñu topp da nga mën a ànd ñun ci bu dee télévision yi tamit Lamfal TV ak Touba TV ak Mourchid TV ba tey ci internet bi ñu fàttali ne Touba Vision en direct lañuy def waxtaan yi ci internet bi wala Bawol Media kon ñu jox kàddu gi al oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante rek moo aju ci li nga xamante ne la suñu waxtaan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 mbokk mi nee na ginnaaw bi mu dégloo sa waxtaan wi daf doon laaj nan lan mën a def ba làngu wolof na koy jàngale ci école yi réew mi ëpp ci xale yi réew mi fa la ñuy dooree am jàng te xam boo seetloo balaa ñu ko jàng ci l'école bi dañ lay njëkk a jàngal aw làkk soo lay jàngal xam-xam te moo ne xale bi ñëw ci lekkool bi am na làkk bu mu indaale waaye làkk boobu la ñuy jëfandikoo ba jàngal ko weneen làkk soo koy jàngal xam-xam te bu fekkoon wolof bi mu indaale ci nga koy jàngal rek da ngay daal di daleeg moom rek ci jàngal ko xam-xam niñ mën a def nag lu dara lu dul lekkool bi dafa am ñu ko yàlla dénk te mooy nguur gi kase ñoo ko ci mën a dugal li ñuy ñaan nag mooy yàlla may ñu njiitu réew boo xam ne dafay moom boppam bu wér a wér ba nga xam ne kenn du nekk ci ginnaawam di dogal ci moom dara su boobaa Sénégal bu fekkee moom la boppam dëgg-dëgg ci aw làkkam lay jànge ndax amul benn réew bu suqaliku làkki waa réew ma la ñuy jàng mbooleem réew yi ko ci àdduna rek seen làkk moom la ñuy jëfandikoo du tee nag jamono ubbeeku na ba nga xam ne am na làkk yoo xam ne ku sa njàng sori mënoo ko ñàkk gës lu mel ni français lu mel ni anglais lu mel ni arab mooy làkk yi nga xam ne boo seetloo ci àdduna bi moom la ñuy gën a jëfandikoo waaye làkk wii sa làkk réew nag moom moom la ñu war a jàngee ci réew yi yàlla na yàlla defal tawféexu am njiitu réew moo xam ne gëm na ne ci biir l'école bi làkk réew mi dafa war a dugg su boobaa rek dana daal di mën a jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ni ndax sëriñ Touba def na téere boo xam ne ci wolof la ko bind. waaw bu fekkee sëriñ bi la moom daanaka bu dee téere yiñ ci xam yépp ci arab waaye daan na tombal mag ñi nag ci wolof su ko defee yooyu am na mag ñoo xam ñoo ko daan wattu di ko bindaat waaye gisuñ benn téere boo xam ne sëriñ bee ko bind ci wolof. waaw loolu lañ ci mën a wax waaye daana mag ñi nag ci ci ci wolof su ko defee mag ñi di ko wattu di ko bindal seen bopp ñoom waaye duñ ko tuddee téere waaye lu mu wax la rek jotaayoo ko ñoom ñoom ñu dem bind ko waaye téere yi moom yépp ci arab la jërëjëf mbokk mi nee na da doon laaj ba ndax seet na maanaam wér na ni li ëpp ci réew mi rek maanaam ABC la gën a xam. waaw loolu moom dafa am agence bu ñu tuddee ANSD mooy agence nationale.

ña ca tanewaat mooy ñi dégg français rek te ñoo gën a néew sax ñi dégg wolof moo ëpp fuuf abajada moom ñi góor góorgóorlu ci daara ji te mën nga faa yàgg lool te xëy na luñ la làkk ci arab doo tontu ndax arab dafay làkk bu xaw a jafe nag ndax mën ngaa yàgg ci daara te du tax nga dégg moo tax ñi ko dégg ñoo gën a néew ñi xam ABC daal moo ëpp ñi xam abajada ci réew mi ataw ahlahum bil mu'jizati tafannunan fa yaa laytakum ta'tuuna bil kalimaati yonent yàlla Isaa day laaj ba xam ndax ab français la wala ban langue la woon yonent yàlla Isa. waaw yonent yàlla Isa bu ñuy wax ci wàllu xeet ab nasaraan la woon moo tax booy gëstu yenn téere naan le nazaréen euh, Jésus de Nazareth ab nasaraan la woon waaye nag ab jullit la woon ndax diine yàlla mooy lislaam charia yi ñoo bokkul rek waaye lislaam la yàlla jox ku mu mës a yónni ba ci yonent yàlla Ibrahim dégg nga ci alxuraan suñu borom ne maakaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraaniyan walakin kaana xanifan musliman gis nga yahud mooy xeetam yonte yàlla insa nag xeetam nasaraan la woon loolu lañ ci wax jërëjëf mbokk mi da doon laaj langue walla fan la bàyyi ko waaw loolu mi ngi woon sax ci biir waxtaan wi ndax dafa bokk ci alquran suñ borom dafa dafa dafa dafa wax ni wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi waxtilaafi alsinatikum wa alwaanikum dafa bokk ci kawtifu suñu borom yi nga xam ne moom moo ko sàkk mu njëkk a ne asamaan ak suuf ak wuute bu seen làkk yi wuute moo tax làkk doo dox mukk ba ne ci kii la bàyyeekoo waaye kii maanaam suñu borom la rek moo ko sàkk wàcce ko fi kasa loolu lañ ci mën a wax te aay bi dëggal na ko bokk na ci aaya suñu borom sàkk gim sàkk asamaan ak suuf ak wuute gu suñu làkk yi wuute kasa jërëjëf mbokk mi nee na nan lan mën a def ba murid yi yooyu jamono ji mel ni murid yi sëriñ bi bindoon ci ñoom ay téere ni ki sëñ Mahmoud Mbegere ni ki ni ki waaw loolu de moom mooy farlu rek ak gëstu sëriñ bu wér-wér te ànd ak kilifa gu mat kilifa ku ànd kilifa gu mat kilifa te mooy la sëriñ bi dénkoon mag ñi ne leen ñi ñëw ci yéen ànd ak yéen ngir man rekk fa ma leen tegoon nangeen leen fay teg waaw ku topp koo xam ne sëriñ bi defar na ko ba mu defaru defaru rek ku ne xam na sëñ Balla Fally Dieng bi waa ji ñëwee ci sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg ku ma defar sëñ Tuubaa dana ko defar taxoo la laaj te jamono ji ma toll mënumaa taxoo kenn dangay seeti ku ma defar nga taxoo ak moom kon nañ seeti ku sëriñ bi defar war a koo xam ne leer nañu defar googa rogalaat na ci moom nga taxoo ak moom rek bu yàggee rek li nga mel ni mag ña loolu lañ ci wax. jërëjëf sëriñ bi ba tey kii daf doon laaj xam naa moom la ni mujjee laaj yi jeexul waaye waxtu yi moo ni moo xat dafa doon laaj mu ni ndax ñàkk jàng arab rek. man naa sabab demuk nit ki sawar loolu li koy tontu moy wéyu sëñ Moussa Ka dafa wax ne day fekk ku melni man jangul liggey mu seexal sol ko xam-xam moog borom day fekk mourid bu dof bu tilim ferul ba mu fóot bam set tafal mbolo borom koku xam nga jangul dara waye daje ku bax rek sëñ Tuubaa dana yowmal khiyam da nga fay rus wala nga and ak ku yàlla rus wala yalla yalla dalay rus wala nga and ak ku yàlla rus wala yalla rus loola lam teg mooy fa ngay jaar ba yàlla rus la nga fekki ku yàlla rus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb kon ñàkk ruus ëllëg daal li ci gën a gaaw mooy ànd ak ku yàlla rus rek waaye tënk tënkuwul daal dégg arab taxut a mucc ñàkk dégg arab it terewu ca mucc yàlla suñu borom daal mooy xool ku ko soob mu muccal ko laysa aleyka hudaahum walaakin allah yahdi man yashaa yàlla nañ yàlla bokk boole ci ñi muy gindil boppam. Hmm? loolu rek am solo.